ñu tënk ko ci juróomi baat muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ñëw ci suñu ñaareelu darsu al ñu war a jàng tey li nga xamante ne xaraam na ci mukallaf bi mu ne wa yaxrimu dina xaraam na alayhi ci moom mukallaf bi alkazibu fen wal xibatu ak jëw wal namimatu ak rambaaj wal kibru ak rëy wal ujbu ak xaaw wal riyaawu ak ngistal wal sumatu ak déggatu wal xasadu ak añaan wal buxdu ak mbañeel wa ruyatul fadli ak gis ngëneel ala xayri ci keneen wal hamzu ak piis wal lamzu ak ragaju wal xabasu ak foontu wa suxriyatu ak reetaan wa zina ak njaaloo wa nazar ak xool ila ajnabiyati jëm si jàmbur bu jigéen wa talazzazu di banneexu bi kalaamiha ci waxam yi wa aklu ak lekk amwaali naas alalu nit ñi bi xayri tiibi nafsin ci lu dul tey bakkan wal aklu ak lekk bi shafaati alalu ràmb aw bi diini wala diine wa taaxiru salaati ak yéexee julli an awqaatiha ba waxtu yi passé kon mukallaf bi xaraam na ci moom mu fen la fen mooy wax lu dul dëgg te tey ko kon boo waxee lu dul dëgg te tey ko rek yow yaa ngi fen loolu dañ la ciy bindal bàkkaar dafa xaraam waaye nag bu nekkee da nga wax lu dul dëgg te teyoo ko hmm. loolu kenn du la ci bindal bàkkaar xaraam na ci mukallaf yi mu jëw lan mooy jëw mooy wax ci ginnaaw nit ki li ko neexul di la dëgg la kon saa soo waxee ci ginnaaw nit ki te loolu ngay wax neexu ko moo xam loolu ngay wax dëgg la am du dëgg hmm. yaa ngi koy jëw waaye boroom xam-xam yi seetante nañu juróom benn jëw yoo xamante ne boo ko defee loolu euh, dara neewu ci bu njëkk bi mu ne tazallam ñaareel bi wastaxiis ñetteel bi wastafti ñeenteel bi wa xazir juróomeel bi wa arif bidaatan juróom benneel bi fisqal mujaahil kon bu njëkk bi tasal la mooy jàmbat tooñ jàmbat tooñ tey nit ki tooñ na nga dem di ko jàmbat loolu dara newu ci wastaxis xettaliku tey nit ëpp laa doole nar naa not nga dem ci ki nga xamante ne kooku war na la mën a dimbali ba notel bu la bugg a not nga mucc si nga dem di fa jàmbat loolu dara newu ci mu ne wastafti yi laajteel fatwa dara neew ci tey boo buggee euh, jëflante ak nit balaa ngay jëflante ak moom nga dem ci ku ko xam di laajte ay mbiram loolu boo ko defee dara neew dara neew ci wa xasir mooy tandeku tey nga gis nit mu ngi bëgg ànd ak koo xamante ne mën na koo yàq wala mun na ko wala mun na koo dugal ci yoon joo xamante ne lislaam bëgg ko wala mun na koo dugal ci loo xamante ne dina ko lor nga koy mooy pour mu ànd ak kooku noonu loolu dara neewu ci waaw def bidaa bidaa tey nga gis nit di jëf loo xamante ne dëppawul dara dara ak sunna ak alxuraan nga ne nit ñi na ko nañ ko moytu kii la mu nekk di jëf yépp bidaa la loolu boo ko defee dara neewu ci fisqal mu jaahili euh, kàccoor buy béral nit ki bàkkaar yu mu def rek moom nëbbu ci dara moom day béral lépp kooku boo nekkee di wax euh, la muy def ñu ne loolu noonu dara néew ci xaraam na ci mu mukallaf bi mu ràmbaaj lan mooy ràmbaaj mooy jaxase ñaari nit tey nga gis ñaari jullit yu neexoo nga fexe ba xaj seen diggante ba ñu noonoo loolu euh, baaxul wala jëkkër ak jabar nga xaj seen diggante ñoom ñaar ba noonoo loolu dafa xaraam baaxul xaraam na ci mukallaf yi ba léegi añaan lan mooy añaan nit ko am lu baax nga bëgg mu ñàkk ko loolu dafa xaraam xaraam na ci moom tamit mbañeel lan mooy mbañeel mooy yow amul dara loo bëggal nit ki lu dul safaan rek maanaam yow lu bëggaloo ko dara lu baax ne loolu tamit baaxul waaw xaram na ci moom euh, rëy lan mooy rëy mooy euh, xeeb nit wala bañ dëgg boo demee ba xeeb benn doomu aadama walla ñu lay wax dëgg yow nga koy bañ rek yow euh, ku rëy nga yàlla nañ ci yàlla musal ndax bëri na ñu ñu alag ci diine bi rëy lañ leen alage xaraam na ci moom tamit mu xaaw lam mooy xaaw mooy naw jëf yow da jaamu yàlla ba gis sa bopp walla jaamu yàlla yow ba yëgatoo dara lu dul sa bopp yow da nga nekk euh, di xaaw waaye boo xamoon loolu yëpp dina la ci bañ a fekk ndax li ngay def yëpp amul dara loo ci mënal sa bopp te la koy defee tamit amul dara loo ci moomal sa bopp mukallaf bi xaram na ci moom euh, ngistal la ngistal yow li nga nekk di def yëpp yàlla taxul waaye ngir nit ñi gis la donga tax loolu dafa xaram ndax nit ki lu muy def lu ne rek war na euh, nekk yàlla rek a tax xaram na ci moom tamit mu déggatu la mooy déggatu maanaam yow li ngay def lu ne defoo ko ngir yàlla waaye da nga koy def rek ngir nit ñi dégg la loolu dafa xaraam xaraam na ba léegi ci mukallaf bi mu gis ngëneel ci keneen loolu xeetu rëy la loolu dafa xaram xaram na ci moom muy jëw jëw euh, jëw jëw jëw euh, bët maanaam piis tey nit toog ngeen bëgg a wax ci moom ngeen bañ mu xam ne ci moom ngeen di wax ngeen nekk di ko junj ci ay bët loolu dafa xaram walla jëw ci làmmiñ jëw ci làmmiñ tey nit toog ngeen bëgg a wax ci moom ngeen nekk ngeen bañ mu xam ko ngeen nekk di euh, junj ci làmmiñ loolu defa xaraam xaram na ci mu mukallaf bi fowantu yonent bi sallallahu alayhi wa daan na wax ne bépp foo buy jullit bi di foo di foowee rek neen la ba mu des ñett yan ñett mooy jullit bi di foo ak soxnam wala foo ci war fas loolu day tax boo demee xare ba nga mën a war fas wala foo ci fitt day tax boo demee ci xare bi nga mën a sandi fitt euh, xaram na ci mukallaf bi reetaanu ne reetaanu soxor naka tey jii nii euh, nit ñëw ci yow am soxla boo xamante ni bu ko ñor la mu diis la ko te soxla boobu noonu daanaka la koy faj sa lu néew la lu mel ni ay ñaari téeméer ñetti téeméer ni ngeen toogee di waxtaan rek nga soulignal ko benn débat nee ko man de sama jabar daf ma bëgg a fontoo maa ngi naan dama koy jëndal xar bu deux million moom mu naan ma xar bu cent mille franc la bëgg ba pare nga dellu nga ne ko ñetti téeméer yi ñu may laaj de man aw ma ko kooku da nekk di ko réeréex soxal di ko ñaanal di ko di ko ñaawal xaraam na ci mukallaf bi tamit njaaloo la mooy njaaloo mooy sëy ak kudul soo soxna loolu dafa xaraam xaraam na si mukallaf mi tamit xool jëm si jigéenu boo xamante ne jaamur la ba muy bànneexu ci euh, waxam yi mm. loolu dafa xaram xaram na tamit ci moom mu lekk alalu nit ñi ci lu ci lu neexul seen bakkan kon loolu dafa xaram ak lekk alalu ràmm lan mooy lekk alalu ràmm mu ràmm bu ñu waxee ràmm rek mooy dimbali nit ki nga mun koo dimbali te la koy dimbali loolu mënu koo kute dara wala munu la kute dara yow nga dellu di ko si laaj alal loolu dafa xaram wala lekk alalu diine naka ngay mbubboo diine bi di dem ñu lay jox ay adiya wala di dem di lay jox ay xaalis ngir ay daara yi nga nekk di woote ne yow moom nga yor wala ngir ay jàkka yi nga nekk di woote ne moom rek ngay tabax ñu lay jox xaalis boobu nga koy def ci ay compte banque wala sa poos di ko dundalee sa njaboot yaa ngi dundalee sa njaboot loo xamante ne lewul lu xaraam na te yow mi si boppam yaa def lu euh, xaraam mukallaf bi euh, xaraam na ci moom ba tey mu yéexee julli ba waxtu bi passé comme que julli dafa am waxtu muxtaar ak waxtu daruur waxtu muxtaar mooy bi nga xamante ne foofu lañ la digal nga julli bu nekkee ngantu am na nag ba mënoo fa julli nga julli ci waxtu daruur bi loolu euh, loolu loolu fa julli noonu la tëree waaye bu nekkee amoo benn ngantu yow nga nekk di Euh, yéexe sa waxtu bi ba muxtaar bi paase nga daal di ko julli ci daruur bi loolu baaxul am nga bàkkaar rawatina nag muxtaar bi ak daruur bi yépp weesu la te yow amoo woon benn euh, ngant wala ya xillu daganul lahu ñel ko moom mukallaf bi suxbatu ànd ak faasiqin euh, kàccoor waxoon nañu la mooy kàccoor mooy kiy def bàkkaar yi di ko biral kooku daganul mu ànd ak euh, euh, euh, mukallaf bi daganul mu ànd ak kàccoor wala mu jaali wala mu jaala jaalasatuhu du caagari tamit mu toog ak moom li xayru daruratin ci lu dul lor kon kàccoor bi yow mi nga xamante ne mukallaf nga yow waroo toog ak moom waroo ànd ak moom ndax ànd ba ngay ànd ak moom mën na dem sa ba mu wëlbati si njubb nga nekkoon nga dellu doon kàccoor ni moom kon yow euh, waroo waroo ànd kàccoor du caagane sa nga toog ak moom ndax boo toogee ak moom di déglu muy nettali yu bon ya muy def amaana loolu mën na laa dugal ba nga ànd ak moom di def ci lu bon yooyu noonu. Mm. ba mu des nag fekk ngant la naka tey boo doon dem voyager nga tooga koo xamante ne kàccoor la loolu euh, ngant la mun nga toog ànd moom. waaye am na ñoo xamante ne seen ngëm yàlla yegg na ci ba bu ñu gisee ne ñoom mën nañoo wàcc am benn beneen oto rek ñoom dinañu wàcc dem jëli beneen oto bàyyi fa kàccoor boobu noonu mu ne walaa yatlubu bul sàqu ridaa ngërmande almaxluqiina mbindeef yi bi suxti ba mere alxaali ba mere ba mere la alxaaliku aji mbind mi mooy yàlla kon nit ki waroo sàkku benn ngërmande ci mbindeef yàlla yi ba def loo xamante ne yàlla da lay mere yow gis nga ne tey jii nii muy sa waajur muy sa yaay muy sa baay muy sa xarit ku mu mënti doon boo defee lii nga xamante ne sharia àndu si wala nga def lii nga xamante ne amaana boo ko defee xalkaande yàlla mën na wàcc si kaw sa kaw yow nga def ko ngir lan ngir bégal ñooñu loolu waru la mu kallaf li ngay def lu ne na nekk loo xamante ne yàlla da ko gërëm waaye du nekk loo xamante ne euh, mbindeef mi da ko gërëm waaye bu nekkee mbindeef yi la mu gërëm yàlla gërëm na ko bu ne yow kii mën ngaa def loolu noonu mu ne xaala wax na allaahu yàlla subhaanatum masallam wallaahu ne yàlla wa rasuulahu ak yonentam a xaq ñoo gën a xee ay yurdu ay yurduhu euh, gërëm loo in kaanu bu nekkee muuminiin ay julli ay julli ngeen mu ne yàlla ak yonent bi ñoom ñoo gën a xëye ci ut ngërmande bu nekkee euh, ay ñu gëm ngeen kon li yàlla gërëm rek moom la yonent bi gërëm kon bu nekkee jullit nga xoolal li nga xamante ne yàlla gërëm na ko te yonent bi di ko jàngale yow nga topp ci loolu noonu wa euh, qaala wax na alayhi salaamu yonent bi sallallahu alayhi laa daata bul topp li maxluqi li maxluqin ñañu ki ku ñu bind fii maasiyatin fii maasiyatil xaaligi ci mooy borom bi kon boo nekkee di topp ki nga xamante ne dañ koo bind mooy mbindeef ba ci ba topp ko ba nga xamante ne yaa ngi mooy yàlla loolu yonent bi diglewu ko nee na kon yow mii nga xamante ne mu kalaf nga bu nekkee julli nga gëm nga yàlla bul topp Euh, ki nga xamante ne mbindeef la ba nga mooy si yàlla naka tey li nga xamante ne moo xew ci jamono ji sëriñ yu bëri wala taalibe yu bëri ñoo xamante ne ñu ngi jox si ay sëriñ ñoom xool suñu li yàlla euh, gërëm wala lu yonent bi digle ñoom ñu ngi xool sëriñ ba la mu wax rek ñu topp si te bëri na ci nag euh, la ñuy def loo xamante ne jamono ja nga xam ne ñu ngi koy defal si sëriñ ñu ngi koy defal sëriñ bi ñu ngi am bàkkaar si jamono jooju noonu la ko tey ji nii yàlla nee na su waxtu julli bu jotee na nga bàyyi cépp li nga doon def nga julli yow nag jamono ba ngay julli fekk yaa ngi nekk ci sa liggéey sëriñ waxtu bi jot nga bàyyi waxtu bi topp liggéey sëriñ bi boobaa nag topp nga euh, mbindeef bi ba yàlla mu lay mere te yaa ngi mooy yàlla ci waxtu ba nga waroon joxe te joxe woo ko mu ne walaa yaxillu daganul lahu ñeel ko moom mukallaf bi ay ay yaf ay yaf ala mu jëf filan benn jëf xataa yaalama ba mu xam xukmallaahi xukmallaahi fii atte yàlla si jëf jooju noonu kon jëf jooy jëf rek balaa nga koy jëf war nga xam lan yàlla lan la atte si jëf jooju noonu nga doog ko jëf jëf yi bu nekkee jëf la boo xamante ne yàlla gërëm na ko ne lii boo ko defee da la ciy bindal tiyaaba sharia nangu na ko mën nga ko jëf waaye bu nekkee gis nga ne jëf ju xaram la yàlla gërëmu ko sharia nangu ko te boo ko defee di nga am bàkkaar bu boobaa na ko baay bu nekkee nag yow xamoo jëf ji nga bëgg a jëf de li yàlla gërëm la wala lu gërëmul walla li sharia nangu la wala li sharia nanguwul nooy def mu ne wa yas alal ulama na nga laaj borom xam-xam yi yan borom xam-xam mooy yi borom xam-xam ñi nga xamante ne Euh, na nga laaj borom xam-xam yi bu nekkee gisoo borom xam-xam booy laaj mu ne wa yaxtadi nga topp mu bil euh, na way topp li sunnati ñeel sunna muhammadin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla yokk xéewal te yàlla yokk ko musal kon da ngay laaj borom xam yi wala nga topp woy topp sun sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ñan ñooy ñooñu allazina ñi nga xamante ne na ñu ngi tettal ala ci topp yàlla wa yuhaziruuna ñu ngi moytandiku min itibaa'i seytaani ci euh, topp seytaane euh, topp seytaane kon ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi tettal ci topp yàlla ba pare di moytandiku nit ñi ci topp yoonu seytaane mu ne ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wala yarda bul gërëm li nafsihi ñeel li sa bakkan bëgg maanaam yow bul topp sa bakkan bakkan lu ci gën a bëri ku ko topp da lay jëmale ci li nga xamante ne moom la yàlla gërëmul kon yow na nga topp digle yi nga noot sa bakkan ba doo jéng benn yoon jëm ci li nga xamante ne euh, yàlla gërëmu ko mu ne maa li nga xamante ne radiohu gërëmoon na ko al mufli muflisuuna euh, waa Falastin mu ne ñooñ mooy ñan na ñi nga xamante ne daa at sanku na amaaruhum seen dund fi xayri daatillaa ci lu dul topp yàlla taala mu kawe mi fa yaa xasratahum mu ne seen mu ne euh, seen fa yaa xasratahum mu ne seen perte wa mu ne woona seen perte wa yaa tuula bukaa'ihim mu ne seen gudd rongoñ yowmal xiyaamati ba si penc mu ne kon bul gërëm sa bakkan li nga xamante ne waa falas ñoom lu euh, euh, mu gërëm nañ ko mooy ñi nga xamante ne ñoom perte nañu te bésum penc seen rongoñ dina gudd mu ne bésum penc am na ñoo xamante ne ñoom dañu nekkoon fii ci àdduna di am ak nit ñi maanaam di leen tooñ di leen jaay doole yu mel noonu bésum penc bu ñëwee yàlla day da leen di taxawloo ñoom ñaar ki nga xam kañu tooñ ak ku tooñ ki ki nga xamante ne moo tooñ dañuy jël ay tiyaabam yëpp fayee ko ki nga xamante ne moom lañu ñu tooñ bu ñu demee ba nga xamante ne la mu waroon fayee ci ay tiyaaba jeex na desatul dara kañu tooñ nag ñu jël bàkkaaram yi di ko ko di ko jox ki nga xamante ne moo tooñ moo ameloon xaq nit ñi kon kooku desetul dara lu dul ay bakkaar moo tax mu ne la kooku perte na ndax amul benn tiyaab boo xamante ne mën na ko dugal na moo tax mu ne la rongoñam dina yàgg jooy ndax dinañ ko dugal safara di ko euh, euh, mbugal kon yàlla nañ ci yàlla musal mu ne nasalullah ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa sallam ay mu daal di ñu dëppale ci tibaax yi topp sunnati nabiyina sunna suñu yonante wa shafiina suñu ràmm wa sayidina suñu sang muhammadin muhammad sallallahu yàlla na yàlla yokk ci moom xéwal yàlla na yàlla yokk xéwal alay ci moom wasallam yàlla yokku ko musal mu ne kon ñu ngi ñaan yàlla euh, mu dëppale ñu ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ma moo ñuy ràmm bésum penc euh, balaa yàlla di commencé atte dina taxawloo ñëpp mu daal di wàccee jant bi ba boo koy boo yëkkatee sa loxo sax mu laar euh, jant bi mu yokk tàngoor bi ba pare fay leer bi dangay gis nit ñi di ñakk ku ne rek li nga jëfoon ci lu bon ñàkk li ngay ñàkk noonu lay tool dangay gis koo xamante ne day ñàkk ba ñàkk bi daal di ko wan ndax lu bon yi mu daan def bu boobaa naa yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xamante ne mooy tax ba yàlla dindi loolu noonu commencé atte yonent boobu nga xamante ne nag mooy suñu sang te waxoon nañ ci dars bi weesu lan mooy sang mooy ku ku la gën jikko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla seedal na ko ne moo gën ñëpp jikko wa innaka la ala xuluqin azim mu ne yonent boobu yàlla na yàlla yokk xéwal ci moom yàlla yokk ko musal lii moo nekkoon suñu ñaareelu dars al axdari joxante dig daje beneen yoon incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.